pourquoi à sept mois des élections mhm. nga bëgg a woote ay procédure d'urgence hmm, di soppi ay mbir xam nga au niveau de des accords de Lyon dans ce CEDEAO dañu ne je pense six mois avant les élections surtout sur des questions yoo xam ne amul consensus faut pas toucher la constitution day indi ay problème hmm. mais pour revenir rek sur cette question bi nga posé je pense que am naa ci juróomi xalaat si li nga wax ni yëpp benn bi mooy euh, keroog gis nga ñu dugal fii benn projet et c'est dommage sa ça reflète la qualité de la quatorzième législature dañu noonu lañu qualité li ñu leen bëgg rupture par rapport a la treizième législature mais lii ñu fi wax yëpp nga xam ne ay questions essentielles lañu fi teg et le doyen si nu di ñu ngi surfer sur la politique dugguñ sur des question technique ku nekk sa camp fu mu nekk fa nga bokk. yow nekkutoo député du peuple. Ah, ah. te le député d'une coalition ou d'un parti. am ñoom sax waxoon nañu ñoom parti kay li ñuy wax li cos coalition sax feeñatul. feeñatul léegi mbirum parti la ah, ndax yeewi moom bu fay yeewi coalition la mais. la leen dugaloon nii y' a pas de rupture. ñi ñu yóbbu ak condition ñu fa ñëwee aussi ak li fa xew yëpp ah vous voyez bi ñuy xeex nañu fii wax nañ ma lu ñaaw ak ñoo xam ne sax or sujet lañ def complètement <laughs> wàllu ICS yeeg yooyu député wu Tivaouane bi ñëw di ah. wax foofu ay règlement de compte à Tivaouane alors que nous sommes des question d'état yoo xam ne réew mi ñëpp la war a soxal et non des régions ou bien des villes loolu mooy wane la qualité de nos députés pose problème loolu c'est ça aussi ñenn ñi sax booy booy wax di la déglu kay saaga ngay dégg yooyu euh, bon pour vous dire rek loolu je rejoins la position bi nga wax mooy la qualité de la députation quatorzième législature duñ ko war a xoolaat la moom may yóbbu may naan l'article 87 bi ñu bëggoon laal man dinaa la surprendre quelque part quelque part soit les acrobaties euh, politiciennes euh, euh, yooyu man dissoudre cette assemblée là ne me pose aucun problème organiser des élections jumelées avec euh, les présidentielles pour ñu nekk dans une parce que bu ñu ko deful le prochain président en milieu de trucs y aura ce problème Euh, nu mu encore assemblée nationale bi bu deux ans yi passé mën na ko dissoudre. ah oui bien sûr loolu la ko loi may. donc c'est différer juste le problème il y aura encore des élections il y de l'argent à sortir alors qu'on pouvait coupler pour le faire mais ñu toog waxtaan si ñëpp ba ñu xam ne naka la ñu koy defee et ça permet aussi de dire que dañu waroon auditer le fichier. électoral le fichier parce que bu ñu ko auditer mooy mu ñuy mën a xam ku nekk ñaata parrain nga war a indi.